ci loolu moo nekkoon suñu sax. waaw gis nga man bi ma amee seize ans. Mm-hmm. dañu dëkkoon dañu dëkkaale par exemple kër boo xamante ne dafa am quatre appartement léegi nag ki ñu jàkkaarloo woon ñun palier. am mm-hmm. benn gan. gan gi jóge si benn dëkk Sénégal ñëw ñëw ñëw ñun fi ñu dëkk. waa ji mm-hmm. gis ma waa ji gis ma rek ne daf ma bëgg man seize ans laa amoon. léegi mu ànd ak suñu suñu voisine bi ñëw sama yaay waxtaan ak moom après ñu gindeeku comme ni nga doon wax parce que moom fu mu mm-hmm. dëkk ak ñun suñu village sorewul rek ñu gindeen tikku mbokk sama côté papa. Mm-hmm. léegi comme sama papa moom aawam dafa gaañu foofu la doon yenn si si doomam yi. boobu nekk mm-hmm. na retraite moom ay 16 heures lay ñëw pour di di takk sant zawiya bi. léegi bu mu ñëwee sama yaay woo ko expliquer que doomu diw la bu doon liggéey fii sa mbokk la. Mhm. mais man sama papa moom dafa tëraloon tellement sama yaay ba lu sama yaay lu mu wax rek loolu lay d'accord. Mhm. léegi sama yaay expliquer expliquer que moom man maa ngi dégg mu ne man ñooñu sama mhm. mbokk lañu mais man xaw ma leen. léegi sama yaay taxaw rek ñu daf may may waa ji te man musuma ko gis ba pare. waa ji il avait cinquante neuf ans man ma am seize ans. taxaw rek ni daf may may waa ji sama benn sama benn grand frère boo xamante ne dafa doon liggéey si benn hôtel moom mus na gis waa moom mus na léegi sama frère bi mu wàccee liggéey gis waa ji dafa ni sam dafa ni bul ci dugal kii xale la bàyyi ko mu jàng sama yaay daf ko tene daf ko pour sama mag bi bañ a wax à l'époque hmm. ay quatre vingt cinq ay quatre vingt cinq yooyu xam nga ku mhm. ci indil warugar cinq cent mille tey mooy ay deux millions wala je sais pas quoi mhm. waaw waa ji indiwul benn mbokkam léegi suñu voisin bi ak mhm. ku ñu jàkkaarloo que ñooñu daal ñoo ñëw ñaan c'était c'était un mercredi la waa ji lundi mardi la waa ji dox loolu man jeudi j'étais marié man xale ma si guddi gii sama yaay ñu tëdd na man maa ngi foofu manipuler na ma si guddi gi ma jox ma waaj. Oh, je ne sais comme pas possible ma am soccant bu je ne sais si benn maire maire bi dagg ak ay oh, lan. ñu dellu si ma. Oh. sama yaay waxtaane comme jëkkëram jël nañ ko sama yaay di jooy. man dañu ne tellement souffert. ëmb topp ma ëmb topp ma waa ji jëlee bi trois fois dans ma léegi bi ma si bi ma ëmbee. mu ñëw. Mm-hmm. ñu xamante dama ëmb dama am ay analyse yu ma war a def si lañ mujj gis waaj. déedéet kay. mujj gis waaj. <laughs> léegi. man may kalti kalti ak sama ëmb ba yàlla may ma doom doom bi nekk jigéen man je n'ose même pas le dire parce que sama doom sama doom man laa am kersa di wax moo boobu yàlla may ma si doom bu jigéen. il a profité de ton innocence. yàlla may ma si doom jigéen gisuñu waa ji dégguñu ko bi ma wasinee xale bi ba ma am cinq mois yàlla def ma si dépression. di la parce que xale bi oh. ëmb bu métti métti métti laa ko ëmb gis mun nga si bind livre. métti bi xale bi juddoo gisuma ko cinq mois ma am dépression ma feebar si mère bi doon dagg sama soccant yi peut-être dafa laaloon sama ay nerf mu jàpp sama tànk yi bi ma am. Oh. xam nga nga nekk xale 16 ans nga am doom j'avais 7 ah, points de suture. comme sa vie. waaw ama am 7 après yu 4 sama tànk yi paralysé ma am hmm. dépression sam papa ndeysaan sonn si lu mu mën joxe alalam yëpp fu nekk mu dem fa ba yàlla may ma tan bu ma yàlla may tan comme sama mag dafa nekkoon dafa nekkoon Europe. Hmm. après sama mag bi indi ma fii. par contre man douleur yooyu yëpp ma dundoon Sénégal pour man je me sentais que sama yaay dafa dafa ne man cinq ans lan laa def ba mu mën ma sacrifier comme ça. lan la soxla woon lan pour mën ma sacrifier comme ça. lan moo ko dugal ci loolu. léegi man bi ma ñëwee fii ba ma stable. ay léegi nag man dama amoon haine bu viscérale si moom yan na ma si hmm, yàlla hmm. jéggal dundatul bu ci jéggalu tu as droit am nga ci droit am nga droit yàlla accordé na la ko. wut li ma xam naan yàlla sant ñu ñu bëgg waaju respect la ñu yàlla sant. mais yàlla dafa xam dama wax Fatima yàlla dama parce que bëgguma ko un goût viscéral laa am. ma defoo dara déggoo ma ni yàlla ci sagesse am amul fu mu bind ni dañu war a bëgg waajur par force waaye dafa ne dañ leen war respecté yërëm leen ndax gis nga di ma ci ñëw après. mais tu droit boo amee naqar nga exprimer ko. malgré loolu bëggoon naa ko en tant que sama yaay lu ma mën defaloon naa ko ko mais man su ma jógee su ma sama papa laa gënoon di xalaat moom laa gënoon di la preuve man dama ñëw fii même pas un an comme munoon naa létt ma ma létt ma létt fii denc xaalis bi yëpp à l'époque passe màkk c' un million trois cent cinquante mille dama ko envoyé pour yëpp sama papa màkk parce que parce que xamoon naa loolu mooy bëgg-bëggam bi mu nekkee si lañ ndeysaan pour dem ci lañ gis ni dafa am problème cardiaque mënul dem. Hmm. léegi ma bosin ma bosin sam avant sax loolu yàlla boole ma ak jëkkër bi gën si man fii. ma am fi jëkkër jëkkër bi gën bi gën si man. ma yónnee xaalis pour sama papa war a dem léegi 93 sama yaay sama yaay ñëw fii pour seet si ñu. lu mu ñëwee gis ma gis sama situation moom dafa commencé di wax mu ne waaw lu nga lu nga nangu woon lu nga nangu woon ndigalu waajur loolu moo tax tey yàlla may la jëkkër bu mel nii sama xol bi di bëgg war. di kon elle ne regrette rien daal moom elle ne regrette parce que bi sama doom juddoo man dama doon inquiète toujours boobu maa ngi Sénégal dam koy wax yaay kii doo leen woo papa mu ñëw defaral ko rek dafay mhm. dafay pété les après ma noppi léegi man bi ma bi ma bi ma maa ngi jaxasee sax histoire bi bi ma ñëwee fii. Mhm. sama jëkkër bi ma yàlla boole dama ko expliquer situation mën ma amul benn problème mu adopté sama doom. sama doom bi oh trois moom moom am na ko wax bi man aw ma ko. sant yàlla. mais xale boobu tey tam bi mu ñëwee euh, souffrance bi ma ko ëmboon. xale boobu tey dafa am ay soucis maladie mentale. traumatisme. Mhm. traumatisme boobu. c'est ça traumatisme yi dafay bokk parce que bi moo traumatisé wu. waaw parce que ci ëmb bi la. exactement moom soo ko gisee da ngay wax sax dara jot ko mais su ko affaire bi jógee dafay traité complètement. Mhm, mhm. ba ba nii moom dafa nekk sous traitement. mais pour te dire rek ah, pratiquement sama yaay dund na ba dee musu regretter loolu léegi man su ma ñëwoon. man dama ko doon namm tout le temps su ma tout lépp sama papa gaañoo da nga daan wër am wuuram da nga daan man du xale bu difficile du xale buy taxawaalu lu mu bëgg rek man dem see def si liggéey kër si liggéey jigéen ci lu ma mënoon. Mhm. léegi bi ma bi ma bi ma bi ma bi ma bi ma bi ma bi ma bi man dama koy nangu su ma ñëwee Sénégal. croyance yi la. gis nga nit ñi loo xam ne moom dafa jàpp ni def na lu baax xam nga des fois waajur yi. li may wax naan des fois gis nga ñàkk euh, ñàkk euh, déggoo day am léeg-léeg waajur def dara jàpp defal na la li gën ci yow yow nga gis ni sa waajur daf la tooñ parce que injustice la dunduloo moo tax ñuy wax ni léeg-léeg euh, ñàkk ñàkk déggoo mooy réeroo day am ci diggante waajur ak doom te réeroo yooyu bu toog waxtaan amul day jafe pour ñu pour ñu consolider consolider ko damay faral sama formation yi femmes yi may accompagner man leen toog leen seen waajur yi ngeen éclaircir naqar yi parce que tànk que éclairciro naqar yi yow yàlla mën na la may xéewal bu nekk ci sa dund mais sa xol bi moo dul libéré sa xol bi day am poids bu fa toog te poids boobu yow xam nga. fii a pour sama doom am këyit su ma musoon wax loo rek dafay féetalee plomb léegi moom ñoom doo bu ñu doon seet sax man sama sama. sama souffrance comprendre waaw sama souffrance sama comportement sama papa ndeysaan daan na ma xool benn jour dem naa tàggoo ma ma dem sama meilleure copine pour mu lett ma. léegi moom ba mu ñëwee ba mu laajtee ñu nekk ah dëpp si suba dafa dem xamuñu fu mu dem moom dafa ñëw direct sama meilleure copine bi ndeysaan pour xool ma mais ma gisee bi mu taawee man nga papa man maa yëpp damay yëpp ma paree dinaa ñibbi si ndeysaan def jooy day bëggee def leen def leen ay kër sinon mën na bëggee mën na taal mu doxaan mu doxaan mu doxaan ndànk ñibbi mais pour te dire rek man dama ku ko doon nëbb dama ma ah, gisee ñaari fan ñetti fan rek. ci defal su ma ñëwee mais li ma fay nekk sama kër dama yàkkamti jóge Sénégal. dëgg la ma gis nga li nga dund ñu bëri dund nañ ko. dama lay apporter rek tuuti bu dee mën nga bu dee accorder nga ma ko tuuti. guide pour nga retrouver wu mooy gis nga des fois ñun ñëpp si suñu cursus si dund bu ñu yàlla wàccewee ci kaw suuf daf ñuy boole ak euh, waajur boo xam ne suñu mission ci kaw suuf dañ ko war a jàng à travers suñuy waajur moo tax dama wax ni tout le temps ñun ñëpp dañu amay blessure lu ñuy wax blessure de l'âme blessure yoo xam ni mettit bi ci ruux bi la sa ruux mooy metti nekkul sa yaram nekkul fenn ci yow parce que souffrance bi ngay dund tu ne peux pas l'expliquer moo tax yow après da ngay accuser l'autre et pourtant moom mi nga accuser moom mën na bañ a xam sax yow li nga koy accuser lu mu doon parce que souffrance bi c'est tellement profond ba nga xam ni. yow c'est ça c'est ça. yow li ngay sentir ak souffrance bi ni muy màggee moom waajur bi mënu la comprendre parce que nekkul en mesure comprendre la ndax tey li nga dund moom la ñuy wax blessure d'injustice tu le vis avec ta parce que waajur bi am blessure d'injustice day nekk waajur bu rigide day tar. du am du la war affection même bu amee affection du ko mën a wane du ko mën a euh, du am boobu euh, facilité dund ko ak ay njabootam ndax moom tamit elle l'a vécu avec sa mère certainement ndax en général waa ji bi am blessure injustice xoolal wala nga fàttaliku bu la daan nettali ci yaayam naka la lan la la daan nettali ci yaayam moom am na lu mu dund ak yaayam. moom pourtant parce que moom ñoom ñaar rek lañu moom amour la daan nettali si yaayam bëgg bu ko yaayam bëgg bu bu mu amee doomam yi yaayam moo leen di toppatoo mm-hmm. moo leen di. fang mais n'empêche loolu du tere dund na blessure d'injustice parce que nga des fois waajur bi nga gën a bëgg mooy waajur bi la yàlla gën a nattu xam nga yaay comprendre li may wax. dëgg parce que yàlla da ko wax si alxuraan en général li nga gën a bëgg ci loolu laa lay nattu. te en général waajur bi nga gën a jege moom la la yàlla di xañ amuuram. parce que foofu tamit liñ fa war a jàng rek tout le temps mooy amour maternel boobu ñuy chercher tout le temps tey mën nga ko seet sa waajur ba sonn doo ko am. mais nga xam ni même bu la ko sa waajur amul bëgg na la même bu la ko warul parce que ni ñuy exprimer amour mooy uute léeg-léeg mooy jafe ndax waa ñun tey waajur bu fekkente ni yar na la recevoirul amour ndax waajur mun na nettali lu baax ci waajuram et d'habitude c'est comme ça on a tendance bu sa waajur génnee àddina rek dootoo nettali jamais lu lu lu euh, naka lu négatif ci moom parce que éducation bi la te pourtant soo bokkoon waaw en fait xam mm-hmm. na xàmmewuma ko bu baax et moom elle est décédée en 76 man maa ngi judd. c' est ça xawma ko bu baax. c' est ça c' est ça que tey xëy na soo bokkoon nit ki laaj ko nga gën a creuser rek da ngay gis ne même bu dee mu ngi wax ci waajuram lu baax am na mère bu mu gardé waajuram parce que à travers samay euh, accompagnement j'ai j'ai vu que ni sénégalais ku baax nekk wàll yu ku jud ku dee nekk wàll yu du moins ku dee rek que du am sikk te des fois nit ki même bu deewee euh, naqar ak souffrance bi nga dund mu ngi fi c'est présent te mm. loolu tey soo ko solutionné wul doo avancé parce que euh, wax naqar bi nga dund jotewul dara ak nit ki jëf ji ko yóbbu na wala li nga koy waxal li nga xam ne tey moom la ko yàlla di seedeel parce que tey nit ki dund blessure injustice ndax dafa dund tooñaange boo xamante ni jàpp na ni lii sama yaay def ma tooñ te injustice boo nga dund tey pour nga mën a giif pour nga mën a baal sa yaay il va falloir nga def des séances de méditation nga baal sa yaay. toogal ci fauteuil toogal fu wéet mais des na ma chérie des na xam nga des fois ñun ñëpp loolu la ñu baal nañ ko mais mu ngi met tànk mu ngi metti sa xol baalagoo ko tànk yaa ngi wax di jooy baalagoo ko parce que quand tu es en paix avec ton âme parce que fii nekkul maanaam nekkul ni dañuy accuser ñàkk a baale du problème parce que baal temps la baal il faut nga pare baal du force mooy li wax tout le temps tey du question nit ki dañ lay forcer baaleel baaleel ba baale dangay pare pour def ko. Hmm. baale aussi dafa nekk lu jafe loo xamante ne avec le temps ngay baale. Hmm. te tey dafa nekk loo xam ne tey ñun ñëpp ku ci ne am nga loo dund ak sa waajur loo xamante ni day nekk loo xam ne naka nga koy garder depuis enfance. man hmm. man ma dund lu ma si gën a jaaxal man sama ay sama ay frère sama ay sœur man depuis sama yaay gaañu man dama couper les pont ak tout le monde des fois damay toog dama pose la question. injustice la pourquoi sama psychologue lu may wax mu ne ma parce que ñoom ñëpp ils étaient présents et ils ont rien fait. da leen gardeel colère ma chérie. colère boobu moo tax may la mbir mi ci sa yaay la commencé une fois que tey di nga mën a di nga gis ni ngay libéré woo te loolu li nga wax nii. man dama lay gëne léegi. Fatima mais xam daa comprendre naa loolu. léegi dama lay guider à travers sama propre histoire pour nga am repère après ñu dem ci processus bi nga war a def pour délibéré wu. Mhm. mooy tey man dama koy wax tout le temps mën na nekk sama papa am fii ci mën na sama yaay fii ci live bi dama daan wax tout le temps euh, sama papa dama ko mere woon ndax daf ma daan dóor bi ma nekkee xale dóor yu metti mhm. dóor yooyu dama ko gardeloon colère. dama daan wax ne man li bokk na ci cause bi ma indi tey ci ma tey parce que maa ngi liggéey comme éducatrice euh, fii Italie avec les enfants parce que tey li ma gën a yóbbu ci choix boobu mooy dama ne xale dañ ko war a yar ci yërmande. gis nga colère boobu je l'ai gardé tellement longtemps ça m'a fait tellement mal j'étais nit boo xam ne colérique xol bu jege. gis nga bi ma demee ba commencé sama processus euh, de développement personnel. man jubóowuma ak kenn Fatima ah. même xarit sax mënu ma loolu yëpp cause bi colère bi la colère inconscient boobu nga gaa te pourtant sama papa sama xarit la. dama daan waxtaan ak moom di kii ak moom mais y avait une colère tout le temps bu ñu waxtaanee tout dañu xuloo bu ñu waxtaanee tout dañu xuloo et pourtant su ma wéetee damay culpabilisant boobu dama naan man maa doom ju bon man maa baaxul lu tax mënu ma jubóog sama waajur lu tax mënu ma def lii c'est ça et que culpabilisation boobu daf lay consumer te du la dimbali te day continuer di la jox colère. Mm. avec mes soeurs c'est la même chose avec mes frères c'est suñu kër maanaam pour te dire bëgguma woon kenn je parlais mal de tout le monde parce que je me disais que baaxuñu c'est gis nga li tax ma leen li wax tout le temps li tax ma leen di nettal sama histoire personnelle parce que je suis en paix avec mon histoire parce que tey bés dafa jot ma toog ak sama waajur ma expliquer ko li ma ko meree moom dafa mhm. yéemu jour boobu presque dafa coupé téléphone bi waxul ak man mu toog ñetti fan. mais man j'étais bien. je me suis dit que mhm. même na ma bàyyi xam naa fii lay jaaree bàyyi ma àddina ak àllaaxira mais man je ah, façon man je me xam naa ne jàppalatu ma jeex na. Mhm. deuxième jour bi ma xam ni am na lu mu téye man ma jël courage ma woo ko bi ma ko woowee wax ak moom mu ne ma dama dama am lu ma naqari du question dama la mere de mais li nga wax yëpp dafa nekk dëgg mais man. liñ ma yaree rek loolu laa leen yaree mënuma leen woon jox autre chose loolu rek laa xam pour man xale bu defee dara da koy door da koy puni dangay am rigueur pour xale bi yàgg. Hmm. mais j'ai tellement pleuré moom tamit il a tellement mu ne ma maa ngi lay baalu àq. je te pardon gis nga jour boobu dafa mel ni dañ ma teggil ay montagnes yu ma yéen woon di dox ak moom durant toute ma vie. Hmm. ma amoon colère boo xam ne si góor ñi am colère boo xam ne si tout être humain. parce que tout le temps j'étais là à crier à juger à li fekk nag colère boobu c'est inconscient kenn du ko nangu ci ñun. bi ma njëkkee toog ah, bi c'est ça bi ma njëkkee toog ak psychologue mu ne ma euh, sa colère bi da ko am depuis avec sa papa waxal ak moom ma ne ko non loolu dëgg sa papa mooy être bi ma gën a bëgg ci kaw suuf effectivement je l'aime tellement je classe may wax ci moom laa wax valeur yi ma yaree valeur yi ma transmettre amour bi mu ñu jox et tout à chaque fois damay témoigner que daf ñu yar ci yoon ba nga xam ne mais y avait une chose boo xam ni moo doon def tey à chaque fois daf ma daan sikk ne ma sa comportement baaxul ni nga mel ak man baaxul et c'était vrai hmm. mais colère bi moo ma doon guider à ce que je me d'une manière boo xam ne man j'étais pas fière de hmm. mais bi ma demee ba accepter colère boobu mais tey boo ma fekkee waxtaan sa papa da yaakaar ni sama sama sama copain laay waxal wala sama parce que c'est c'est comme si c'était tous les barrières sont sont fondues. moo tax may wax ni tout le temps. loolu il faut que ñu régler ko ku sa waajur di dund profitool nga régler ko parce que sont des colères yoo xam ne ñun dañ koy refuser di ko bañ léegi nag ki nga xam ni sa waajur génn na àddina toogal nga jàpp ba set nga toog ci sa saal bu wéet foo xam ni tey fu calme la fu foo xam nit du la déranger. Mm-hmm. et que tu fais des séances de méditation nga gëmm say bët. Mm-hmm. nga ñaan yàlla suñu borom. Mm-hmm. mu yërëm sa waajur mu jéggal ko nga wax ak sa yaay comme bi muy dund. Mm-hmm. waxal ak sa yaay yaay booy xam naa ni ni ma yaree ak mariage bii nga ma tànnal bi tax tey ma dund ak ma dund ak koleer ma dund ak naqar xam naa ni bëgg ma moo taxoon nga tànnal ma jëkkër. xam mhm. naa ni jàppoon ni lii moo gën ci man moo tax nga tànnal ma ko. Mhm. ndax soo xamoon ni lii laay dund tey gëm naa ni dooma ko tànnal. Mhm. xamal ni tey maa ngi lay baalu ak ndax ñàkkul ni man tamit tas naa sa yaakaar wala ñàkkul ni man tamit def naa loo naqar yëguma ko maa ngi lay baalu waaye maa ngi lay ñaan nga baal ma. thérapie cognitive la parce que inconsciemment tu te libères tu parles avec ta mère comme bu fekkoon ni mu ngi dund. tu la fais d'une manière bu sincère boo paree nga ñaanal sa yaay soo paree di nga gis ni di nga libéré wu et ça va te faire du bien. incha allah dinaa ko def. defal thérapie boobu ma chérie parce que gis nga am na benn femme boo xam ne mu ngi sama formation yi daf ma daan wax ne ma Fatima mënuma ñaanal sama yaay. ndeysaan. wallaahi lazim tey euh, waa 5D ñu ngi fii di ma déglu am na daay ku nekk ci laay suñu benn maman moom tamit fekk woon na ko daf ma mënuma ñaanal sama yaay. jour bi mu ko waxee ñëpp di tëb di waddi dal man leen calme calme dafa sincère li nekk ci moom la wax nañu accepter nit ñi seen douleur nañu accepter nit ñi seen dund parce que dund gi neexul yombul mais après bi ma nettalee fu mu jaar ak yaayam ma ne ko am nga droit nga mer am nga droit am colère sa waajur am nga droit tout ça lu loo am droit la mais gëmal ni tamit ak lu mën a xew waajur sookul la waajur c'est une partie de toi waajur sa deret la waajur yow la tant yaa ngi am colère boobu c'est comme si te c'était da nga mere sa bopp inconsciemment c'est comme si te inconsciemment euh, ci avancement bu positif parce que yow sa dund gi léppay jaxasoo relationnellement tu ne vas pas mooy relation bi jiitu bi ñi karate bu ratee moo tax ñuy wax ne waajur xeer doom doj la du question de concept de non non non boo xam ne waajur c'est une partie de toi mm. ovulum nga tey sperme sa papa nga tey yéen ñoom ñaar ñoo composé nga doon nit. wallaahi. tey sa waajur boo ko gardalee en mu ngi mel ni yow da nga sa bopp en inconsciemment. Hmm. bu ko defee sa dund yow tu sens que da ngay tu existes mais tu ne vis pas. dundoo existé nga mais dundoo. même soo a le ah. lépp lu nga bëgg en fait sa dund sa man nga dund moo dul saf luy saf dund. c'est ça du saf dund dund c'est ça du ma xool sama jëkkër man dama koy yërëm parce que damay wax yàlla moom moo ko moom moo ma ko yónnee mais lu ma lu ma koy teg li nga koy teg mhm, colère bi la ma chérie gis nga colère boobu soo ko xasee ba résoudre dans ta vie da ngay da ngay libre parce que là tu n'es pas libre parce que da ngay garder loo xam ne daf lay consumer émotion bi nga garder daf lay consumer tu n'es pas bien avec tes enfants tu n'es pas bien avec les autres relations boo am day dem et boo amee blessure d'injustice li ci gën a yéeme mooy doo euh, jigéen ñi ngay gën a amal problème. et que tout daal man mhm. sama sama doom sama doom yi mag lañu benn doom bu góor laa am mais sama doom mhm. même su su demee ba vingt et une heure man damay paniquer comme pas possible. sama mhm. doom yi sa xel du dal. waaw dama leen couver façon boo xam ne man xam naa sax baaxul si ñoom. mooy protection bu ëpp parce que tu tu tu as senti que tu n'as pas été protégé tu as senti que sa waajur daf la négligé daf la jalax ci danger mm. et la peur bi ngay yëg à chaque fois mooy da ngay essayer protéger say doom ba yow li la sa waajur teg doo ko teg say doom tout le temps chaque comportement dafa am cause ça ne vient pas par hasard mm. donc réconcilier wul ak sa bopp nga baal sa yaay baal ba pare nga baal sa bopp nag parce que da ngay mere sa bopp tamit inconsciemment tu te pardonnes à toi-même tu pardonnes ta mère tu ton âme nga ñaan yàlla suñu borom mu jéggal sa yaay nga xam ni sa yaay lu mu la defal na fa def par amour mais bu dee des fois suñu waajur acte yi ñu def se cruel waaw c'est cruel parce que euh, on on, on l'accepte sama yaay a été injuste l'accepte parce que sa a été expérience boo xam ni si sa dund moo la def tey ki nga doon ñun ñëpp nous sommes euh, l'ensemble de notre histoire. Mm. tey man Fatima Zahra fi ma jógee ba egsi fii. fi ma jaar ba expliqué samay waajur moo ma def tey ki ma doon ma toog di wax ak yéen et je l'accepte parce que xëy na su ma jaaruloon foofu tey du ma mën a ne damay défendre xale wala damay défendre jigéen wala damay parce que sama sama mission sur terre cause bi fallait que ma jaar foofu pour ma mën a comprendre certaines douleurs. dëgg la tey li ma mën a waxee ak yow ci waajur su ma dundul woon lenn ak sama waajur du ma la mën a mm. comprendre. dëgg la du ma mm. donc am na loo xam ne on am na loo xam ni on l'apprend sur le terrain avec des des actes avec nos parents am na loo xam da nga koy jàng euh, ci école après nga ñëw nga composer les deux et que là tu pourras comprendre douleur bi keneen ki am. li ngay li ngay sentir aussi ak sa jëkkër c'est légitime parce que des fois soo amee waajur bu bu bu bu jigéen. Mm-hmm. da ngay mere sa papa donc tu as la aussi de trahison parce que tu vas te dire que sama papa il n'a rien fait. il n'a rien fait pour ma défendre. c'est paradoxal et tu vas te dire que comme li ma daan wax tout le temps sama yaay dama ko meloon je lui disais tu n'as rien fait bu sama papa daan ma dóor mosuñu àtte yow moom laa gënoon mel sax en réalité parce que je me moom elle était là pour xool pour seetaan. Mm-hmm. et gis nga cette cette colère inconsciente tu ba nga xamante ni tant que jëloo ci conscience. et que nga ni mais voilà pourtant sama papa il était gentil je l'aime bien mais quand il m'a jamais défendu. pourquoi mm-hmm. il a laissé que sama yaay. def li def li mu def pour gaañ ma pourquoi. mais comme lu ma la waxoon moom lu mu mës a def rek. c'est-à-dire moom moom lu mu lu mu def rek daf ci d'accord. dafa nekkoon li ma wax waaw. Ah, dafa sedd donc dafa ko doon bàyyi tout temps mais en même temps yow en tant que euh, en tan que doom inconsciemment dangay ngay mere sa sa waajur mere bu inconscient parce que il ne t'a défendu donc il faut que tey bu dee sa papa mu ngi dund. nga waxtaan ak moom soo ko mënee. waaw ñëpp gaañu nañu moom. kon nga def sa thérapie inconscient. waaw kon bu boobaa nga def sa thérapie nga def ko ak sa yaay nga def ko ak sa papa tu te libères nga libérer sa xol. s'il le faut nga def ko ñaari yoon nga def ko ñetti yoon. nga def ko comme forme de méditation et que tu vois que dina la dimbali te dina libérer sa xol. incha allah dinaa ko def salaamaaleykum wa si waaw suñu beneen psychologue mu ngi noonu. ñu déglu ko moom tamit. soxna Fatima ñu ngi leen di nuyu di nuyu waa Life yëpp macha allah. Um, ngi leen di. yaay yaay fifi yaay yaayu fifi macha allah wala yaayu titi la wala fifi. titi waaw yaayu titi ki doon ki yaayu titi ñu ngi koy nuyu moom tamit di ko masaw bu baax.